benn tesalonik benn wàll ci lindiil di bataaxal bu jëkk bi yàlla may pool mu bind ko waa tesalonik nun pool silwaan ak timote nu ngi leen di bind yéen mbooloom ñi gëm ci dëkku tesalonik te nekk ci yàlla baay bi ak borom bi yeesu kirist ne yiw ak jàmm ànd ak yéen bët bu set nu ngi sant yàlla ndax yéen di leen boole ci sunuy ñaan duñu noppee fàttaliku ci kanamu yàlla sunu baay jëf ji judd ci seen ngëm liggéey bi tukkee ci seen mbëggeel ak muñ gi sosoo ci seen yaakaar ci sunu boroom Yeesu Kirist mbokk yi yéen ñi yàlla bëgg xam nanu ne yàlla tànn na leen ndaxte xabaar bu baax bi nu leen doon yëgal yemul woon ci ay wax rekk waaye àndoon na ak kàttan ak xel mu sell mi ak kóolute gu màgg xam ngeen suñu taxawaay ci seen biir ngir seen njariñ te aw ngeen suñuy tànk ak yu borom bi ci li ngeen nangu xabaar bu baax bi ci biir fitna yu metti ànd ak mbég ci doole xel mu sell mi noonu ngeen daldi nekk royukaay ngir ñi gëm ñépp ci diiwaanu maseduwaan ak yi ndaxte kàddu boroom bi jollee na ci seen biir te yemul ci maseduwaan ak akaay yi rekk waaye seen gëm yàlla siiw na fépp matul sax ñu di ci wax dara ndaxte ñoom ci seen bopp ñooy seede li sunu ngan def ci seen biir maanaam ni ngeen dëddoo xërëm yi jublu ci yàlla te di ko jaamu moom mi yàlla aji dund ju dëggu ji te ngeen di séentu doomam bàyyi ko asamaan moom yeesu dekkal te dinu musal ci merum yàlla mi nar a ñëw waaw mbokk yi xam ngeen ne ngan gi nu leen ganesi woon du nganug neen laata nuy ñëw jaar nañu ci fitna ak toroxte ca dëkku filip ni ngeen ko xame waaye yàlla sunu boroom may nanu fit bali li tongonte bi metti lépp it yëgal nanu leen xabaaru yàlla bu baax bi ndaxte sunu waaraate wéeruwul cig réer walla ci njublaŋ walla ciy nax waaye ginnaaw yàlla moonu seet ba wóolunu te dénkunu xabaar bu baax bi kon noonu lanuy waaree du ngir neex nit ñi waaye ngir neex yàlla miy seet xol yi musunoo jay kenn yéen xam ngeen ko sunu waare musula ëmb bëgge yàlla seede na ko mësunoo sàkku ngërëmu nit muy ci yéen muy ci ñeneen mën nanoo di ci seen kaw sax nun ñi ndawi kirist waaye woyofoon nanu ci seen biir te lewet ni jaboot buy wuuf doomam cofeel gi nu am ci yéen tax na bëgguñu woon yem ci xamal leen xabaaru yàlla bu baax bi waaye jox leen it sunu bakkan ndaxte sunu xol seeyoon na ci yéen mbokk yi yéen ngi fàttaliku sunu coono ak sunu ñaq xam ngeen ni nu liggéeye guddi ak bëccëg ngir bañ a diis ci seen kaw ci di leen yëgal xabaaru yàlla naka suñu diggante ak yéen ñi gëm doxal nañu ko doxalin wu sell te jub te amul sikk seede ngeen ko te yàlla it seede na ko xam ngeen ne dénk nanu leen kenn kenn ni baay di def ak doomam dafa dëfalal leen seen xol te dëggal ci yéen ngeen dund dund gu neex yàlla moom mi leen di woo ngeen seddu ci nguuram ak ndamam te it duñu noppe sant yàlla ci lii ba ngeen jote kàddug yàlla gi ñu doon waare nangu ngeen ko waxuma ni kàddug nit waaye ni kàddug yàlla ndaxte moom la ci dëgg-dëgg te mi ngi jëf ci yéen ñi gëm ndaxte mbokk yi am ngeen ci tànki mboolooy yàlla yi nekk ci réewu yawut ya te daje ci turu kirist yeesu fitna ya ñu daj ca yawut ya yéen it seen waa réew teg nañu leen ko ñoom yawut yi rey nañu borom bi yeesu ni ñu reye woon yonent yi teg nañu nu fitna yu metti neexuñu yàlla ànduñu ak kenn di ñu teree wax ak ñi dul yewuut ngir bañ ñu mucc duñu noppee xuus ci biir bàkkaar waaye merum yàlla xëppu na ci seen kaw nun nag mbokk yi ba ñu ma leen a xañee ab diir xol yi taxul may wax waaye jëm yi rekk jéem nanu leen a gis ak sunu kem kàttan ndax namm nañu leen ba sunu xool seey ci gis leen kon jàppoon nanu leen a seet si man pool sax ay yooni yoon waaye seytaane teq na ma ndaxte bés bu yeesu sunu boroom dellusee te nu fekke ko kan mooy sunu yaakaar kan mooy suñu mbég kan mooy suñu kaala gi nuy tiitaroo xanaa du yéen waaw yéene suñu ndam yéene suñu mbég benn kon nag ba nu ko mënatulee dékku nangu nanu ñu bàyyi nu nun dong ca dëkku aten te yónnee nanu timote sunu mbokk ak sunu nawle ci liggéeyu yàlla ak ci waareeb xabaaru kirist yónni nanu ko ngir mu dénk leen tey fedd li seen ngëm ngir kenn bañ a raf ndax nattu yi ngeen di jaar yéen ci seen bopp xam ngeen ne nattu mooy sunu cër ba nu nekkee ak yéen sax waxoon nanu leen waxati ko ne faw nu sonn te noonu la ame yéen xam ngeen ko noonu ba ma ko mënatulee dëkku yónnee naa ngir xam fu seen ngëm tollu ngir ragal seytaane fiir leen ba sunu ñaq neen waaye léegi timote bawoo na ci yéen indaale xabaar yu neex ci seen ngëm ak seen bëggeel xamal nanu ne yéen a ngi am pàttaliku yu rafet ci nun te namunu lool ni nu leen namee yéen itam noonu mbokk yi ci biir tiis ak coono yi nu nekk seen ngëm dëfal na sunu xol ndaxte noo ngi dund dëgg-dëgg ndegam yéen a ngi sax ci borom bi ndaw cant yu bari yu nu war a sant yàlla ndax yéen ndaw mbég mu bari mi nu am ci kanamam ndax yéen guddi ak bëccëg nu ngi wàkkiirlu ci ñaan yàlla ngir gis leen ba mën a mottali seen ngëm na yàlla sunu baay moom ci boppam ak yéesu sunu borom jubal sunu yoon ci yéen na leen boroom bi dolli mbëggeel gu tar ngeen bëggante te bëgg yépp ni nu leen bëgge nun na samp seeni xol noonu ci cell gu amul sikk fa kanam yàlla sunu baay ba bés bu yéesu sunu boroom dellusee ànd ak gaayam yi selli yépp benn tesalonik saar léegi nag mbokk yi jot ngeen ci nun nan ngeen war a dunde yàlla te moom ngeen di def waaye ci turu borom bi yéesu ñu ngi leen di ñaan ak a dénk ngeen gën koo feddali ndaxte xam ngeen ndigal yi ñu leen jox ci wàllu yéesu borom bi lii nag mooy coobareg yàlla ngeen sell maanaam ngeen moytu njaaloo ngeen noot seeni cër ci cell ak tedd te xemmem bañ leen a jiital ni xeeti àddina yi xamul yàlla ci mbir mii nag bu kenn ci yéen laal yëfi jàmbur ngir bañ koo tooñ ndaxte waxoon nañu leen bu yàgg te artu leen ne ñiy def loolu borom bi dina leen mbugal ndaxte yàlla woo nañu nu dund ci cell waaye du ci sobe ku tanqam lu wax ji nag defoo ko nit yàlla nga ko def moom mi leen di jox xel mu sell mi ci lu jëm ci bëggante ci seen biir matul nu leen di bind dara ndax yàlla def na ci seen xol ngeen bëggante te moom ngeen di def ci mbokk yépp yi ci diiwaanu Masedowan waaye mbokk yi maa ngi leen di xiirtal ngeen gën cee sax fulla woo leen a dund ci jàmm di toppatoo seen mbiri bopp tey lekk seen ñaq ni nu leen ko sante woon noonu dingeen dund dund gu jekk ci kanamu waa àddina te it du ngeen soxlaal kenn dara ci mbirum ñi nelaw nag mbokk yi bëgguñu ngeen réere mbir ba tiis ni aji gëmul yi amul benn yaakaar ndegam gëm nañu ne yéesu dee na te dekki noonu it yàlla dina indaale ak yéesu ñépp ñi ko gëm te nelaw nu ngi leen di wax liy tukkee ci borom bi nun ñiy dund te des fi ba kere borom bi dellusi du ñu jiitu ñi nelaw ndaxte ndigal lu jàmp dina jib baatu kilifa ci malaaka yi dégtu liitu yàlla jolli te borom bi moom ci boppam dina wàcce ci asamaan booba ñi gëm kirist te dee dinañu jëkk a dekki ginnaaw loolu nun ñiy dund te des fi dinañu ne fëyi ak ñoom jëm ci niir yi tase ji ak borom bi ci jaww ji te noonu dinañu nekk ak borom bi ba faw kon nag na ku nekk di defal sa xolu moroom ak kàddu yooyu benn tesalonik juróom waaye mbokk yi ci li jëm ci jamono yi ak waxtu yi loolu di am matul ñu leen ci bind dara ndaxte xam ngeen bu wér ne ni sàcc di ñëwe guddi noonu la bésu borom bi di ñëwe fekk nit ñi naan lépp a ngi ci jàmm ba ni lewu booba musiba bett leen ni aw mat di bette jigéen ju ëmb te kenn du ci mucc waaye yéen mbokk yi nekkuleen ci lëndëm ba tax bés boobu bett leen ni sàcc ndaxte yéen ñépp ci leer ak bëccëg ngeen bokk bokkunu ci guddi ak lëndëm bu nu nelaw ni ñeneen ñi waaye nanu xool te maandu ndaxte ñii nelaw guddi lañuy nelaw te ñiy màndi guddi lañuy màndi waaye nun ñiy waa bëccëg nanu màndu te ràngoo ngir xare bi ngëm ak mbëggeel muy kiiraayu dënn ak kóoluteeg mucc muy mbaxanaam xare ndaxte yàlla jaglewuñu meram